sëriñ di Naar Jenn ni mu koy defee at mu jot muy xaru tabaski yi nga xam ne da ko yóbbul ki fi nekkal sëriñ Touba di xalif général des Mourides loolee yóbbu na ko ci dimanche ji dëppook le 26 juillet 2020 sëriñ Sidi ànd ak mbooleem taalibe yi ak rakkam yi ñu yóbbul Cheikh Mamadul Muntaxa Mbàkke Bachir lu toll ci ñaar téeméeri xar ak juróom fukk loolee di lim boo xam ne yokk na lool buñ ko méngileek daaw ndax daaw ñaar téeméeri xar lañu yóbbu woon mu nekk liggéey boo xam ne at mu jot Serigne Sidi Naar Diène da koy yokk ànd kook mbooleem njabootug Serigne Naar Diène gi ak mbooleem taalibe yi kilifa yi nag nii lañ def ñoom ñëpp jiitu ànd ak taalibe yi ñu jiital xar yi jaar ci tali bi nga xam ne moo jëm ci jumaa ja dem fekk ji Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké ca daarul minan ci yoon wi yëpp nag taalibe yi ñu ngi wane mbégte gi nga xam ne moom lañu àndal ci ay zikar bi ñu fii ci daarul minan mboolem kilifa yi ñëw nañ toog ànd ak taalibe yi ñu jiital xar yi ñëpp dal ñu xaar Serigne Mountakha Mbacké Bachir génn ñëw gis xar yi ànd ak mbégte lool Serigne Sidi Naar Diène jaayantewaat ak moom yeesalaat ak njébbalam ak mboolem njaboot gi jébbal ko liggéey bi Serigne Mountakha Mbacké Bachir bég ci waaye fàttali kóllëre gi nga xam ne dox na ci diggante moom ak Serigne Sidi Naar Diène tam nekk lu yàgg lool. sëriñ bi dafa wax ne sëriñ Sidi moom ba mu jógee rek la ci moom yaakaar. jëflante man. mu ne jëflante ak moom. wàllu yéene ak yitte ak Pastef. mu ne wàllu yéene ak yitte ak Pastef. àggoon na ci noonu ñuy def gone goo yaakaar. mu ne àggoon na ci noonu ñuy def gone goo yaakaar. di ma ma di ma mu ne di ko fàggul moom sëriñ Sidi. ci ay ñaan. ci ay ñaan. foofu la la tàmbalee ak mu ne foofu la tàmbalee ak moom. yàgg na lool mu ne yàgg na lool. sëriñ naar ci boppam xam na sama diggante ak mu ne sëriñ naar ci boppam xam na diggante sëriñ bi ak sëriñ Sidi. seereeloon naa ko sama diggante mu ne seereeloon na ko dem digganteem ak moom. mu yëg ko lool mu ne mu yëg lool. xam naa ne mu neex ko lool. mu ne xam na it mu neex ko lool. loolu bu ñu demee ba agsi fii. fii. day teewlu rek. mu ne day teewlu rek. gën a sant suñu borom. gën a sant suñu borom. ngir boole gi ñu mu ne ngir boole gi ñu boole ak sëriñ bi. gën sant sëriñ bi itam. gën a sant sëriñ bi itam. muy suñu lépp tey. suñu lépp tey ak ëllëg. suñu lépp biir ak biti. suñu lépp biir ak biti. sama cant boobu sëriñ Sidi mii. mu ne cant boppam ak sëriñ Sidi mii. mu ne daf koy seereel suñu borom mi ñu boole ak sëriñ bi. ak sëriñ bi. ak sëriñ bi muy booleel. te te mu ko sëkk diggante suñu borom. mu ne tey te ni ñu doyloo ko sëkk suñu diggante ak suñu borom. kon sëriñ bi rek. mu mooy mooy mu ne kon sëriñ bi rek mooy suñu tey lépp tey ak ëllëg. amuñu benn mu ne amuñu benn xemmemteef. tey ak ëllëg tey ak ëllëg. budul ngërëmal budul ngërëmal sëriñ bi. kon nag ngërëmam loolu. mu ne kon ngërëmal loolu. mu ne sëñ Sidi mii na xam ne sëriñ bi yéene na ko. jiitalul sama bopp teg ko ca. mu ne jiitalul boppam teg ko ca. ndax cant ak ngërëm. mu ne ndax cant ak ngërëm diggante ak maa ngi leen koy seeral. mu ne mi ngi leen koy seeral mbokk taalibe yëpp. yéen sama mbokk taalibe yëpp. mu ne mi ngi leen koy seeral yéen mbokk taalibeem yëpp. mu ne noonu dong la demee. mu ne jërë ngeen jëf. mu ne mi ngi gën a yeesal jaayanteem ak Serigne Touba. mu ne di gën a yeesal ak pëstéefam gën a feddale sama laxasaayam mu ne di gën a feddale laxasaayam fas yéene ko ànd ak moom ko ànd ak sëriñ Sidi mii ak suñu mbokk taalibe yépp yiñ bokkal sëriñ bi jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf mu ne xol bu mënoon weesu sedd maanaam weesu na ko di wéy mu ne cant it mënta mënta weesu cant mu ne waaye kon mu weesu ko mu ne jërëjëf sëriñ Sidi dafa wax ne mi ngi gën a yeesuwaat bu baax. di jébbaluwaat. di jébbale njaboolu njabootuk sëriñ naar jenn gépp ak taalibeem yëpp. sëriñ bi nee na mi ngi ñaan yàgg fi lool. nee mi ngi sant tey gërëm. nee di yeesal ak njébbalam. nee ak taalibe yëpp ak njabootu sëriñ naar jenn gépp nee mi ngi koy doole ñaanal bu baax. nee wala ren wi tam mi koy sant bu baax nee teewe liggéey bi rek moo ko tax a jog nee jërëjëf Mbacke na ñëpp tàllal sëriñ bi ñaan te bi ñu agsee fii ci daarul minan mboolem kilifa yi ñëw nañu toog ànd ak taalibe ñu jiital xar yi ñëpp dal ñu xaar sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachir génn ñëw gis xar yi ànd ak mbégte lool sëriñ Sidi Naar jenn jaayantewaat ak moom yeesalaat ak njébbalam ak mboolem njaboot gi jébbal ko liggéey bi ginnaaw ziar bi sëriñ Sidi Naar Diène ànd ak mbégte lool ak santaat bu baax a baax rawatina taalibe yi nga xam ne ñoom la àndaloon liggéey bi. loolee Cheikh Abdoulaye waxan rek ni taalibe yi mag ñi saxaaba ya mooy seen baay ci diine nee nuyut ñoom rek la roy te ñoom itam yonent bi moo leen gënaleen seen bopp ginnaaw ñoom la ñuy roy kon sëriñ bi nan gëlal sunu lépp sidina Abubakar Sadiq ba mu ànd ak yonent bi ca gàddaay ga ba ndam ma jige leen pax mañ gis war caa dugg da ko ni bàyyil ma jiitu la ba luy lore bu fi nekkee lor ba ba noppi nga soog a dugg mu dugg yonent bi dugg lënd ga lënd bunt ba pitax ma tàgg fa pax ma fa nekk pax ma fa nekk yonent bi alayhi salaam tëdd ci kaw Ababakar fab boppam teg ci kawam sidna Abakar fab tànkam sàkke ko pax ma nee ndeke jaana ko ci biir pax ma ba jaan ja matt ko ba dangar ji yéeg ba métti lool nga xam ne ñaq wi moo yee yonent bi mu laaj ko mu wax ko ko lim doon mu soog koo ñaanal dangar ji jaan ja daal di wàcc te nuyu itam noonu lan war a mel ak sëriñ bi bu dee leen wax dëgg la ci nun sëriñ bi moo ni gën a lépp moom la ñu jiital ci lépp ndax nee na loolu moo di ak murit li ci des nag wax rek la wax yëngu rek li sëriñ bi daa wax rek ak taalibe nekkul ci col nekkul ci bopp nekkul ci dal nekkul ci doxin nee ak taalibe Pastef rek la nee kon jërë ngeen jëf yàlla leen ko teewee naka ni déwén lii Cheikh Mountakha Mbacké wax doy na daanaka jëru woon dooli dara la mu ñaanal ñaan nga doy na sag léppay nungu incha allah ne jërë ngeen jëf. cig fàttali at mu jot Serigne Sidy Nar Diène dana yëkkati lim bu takk lool ci ay xar jébbal ko ki nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba ci wàccaayu tabaski gi te lim boobu at mu jot day gën a yokku.